I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired. I know you. jël sama place. eh ah kii laa foon la wala ci la ci la wala bii la. yor sama chèque war te dem retiré kii teg ma di jël kaaj bi di filmé. eh ah kii laa foon la wala ci la ci la wala bii am a dem tukki. ji yoxu suma def Espagne la wala ci sama gel mu war ma seet si ma nekk di sangu fii xay Merci beaucoup. Bonsoir, euh, mesdames et messieurs. Où que vous soyez, qui que vous soyez, ils sont là. The DJ. L'un se nomme Must P, l'autre Le tout nga boole ko mélangé ko mu jox le PNG, les jumeaux de Hello Ado. Voilà donc merci beaucoup mon jumeau à moi. Must G. Gentle boy. Bien ou quoi? <laughs> Nice. On a la forme. Yaa ngi tranquille. Waaw mais nice ni nickel. Naka nga wiri wiri, seetaan nga jàkkaarloo, Show. Yeah, all right. Pare nga pour le show? Yeah, Hello Ado. Donc c'est TFM, c'est PNG. Donc on est là pour vous tenir en haleine avec bien sûr des invités de marque ce soir à ne surtout pas rater ici avec les PNG. ok alors le menu il est tellement riche ce soir mercredi bien sûr c'était le show total de 16 jusqu'à 17 vous étiez en compagnie de PNJ de Habiba et de Baba Hamdi j'espère que vous aviez aimé le show que PNJ vous ont proposé pendant 1 minutes le mercredi mais aujourd'hui ça sera du lourd on est en compagnie des bonbons menthe fraîche et des chewing Hollywood bien sûr qui nous accompagnent qui vont nous accompagner durant toute l'émission préparez-vous parce que ça sera du lourd. Mais aujourd'hui, aujourd'hui Mr G a un menu pas tout à fait comme les autres hein. C'est quoi le menu de ce soir? Les artistes ou bien l'artiste qu'on va inviter. Oui. Ils ont quitté une très grande région. Oui, je sais pas si c'est la région de Écoutez très bien, la région de Kaolack, la région de Louga, J, et la région de Ben, juste à Thiès ou bien Mbour La petite côte, Mbour. Hein. La petite côte yeah, Mbour. Donc, entre Thiès, artistes yi mm. Thiès la ñu war a jóge artistes yi Mbour la ñu war a jóge artistes yi Louga la war a jóge wala Kaolack kenn xamul. Hmm. donc Mr Dji il est là. Yeah, oui donner des petits indices yow mi ni ñu seetaan su fekkee ne pare nga pour wax ñu PNJ ñi ñuy invité ban région lañ jógee ma xamante ne da ngay gis ah da ngay gis. Alors aujourd'hui, on va offrir euh, des bons comme le mercredi passé. Vous avez vu, euh, euh, on a offert des bons de glace, bien sûr, venant de la Parisienne. tey ku trouver sama réponse di nga am benn bon boo xamante ne waaw. glace yi nga xamante ne PNG ak seen ay ñoo ko nar a déguster si émission bi glace yooyu tamit di ngeen si am yéen téléspectateurs yi alors J. yeah all right donc euh, j'ai proposé. Euh, sama yaram dafa tàng monde qui nous regarde trois sons laa leen di may ah. ñetti son ñetti son yaay. baa ñu def ko rek baax na booy. trois ayca rek trois rek après ma xool kan moo ñuy woo en live na man mun naa bokk si jeu bi ah. on va jouer au devinette même yow xamuloo booy. si jeu bi damay woote de. <laughs> dem ñu dem premier son bi ah ayca ñetti son laa leen may de ayca gars yi déglu leen Pierre yokkal suñu retour fii yow yokkal son bi Pierre <laughs> takkal jabar nga bañ adversaire dama koy xool ci seet leer alhamdulilah alhamdulilah benn yoon booy gëma mën a song junni yoon suñu bëri woon doo ma a daan dàqu gonna soon Ara ara lu yàlla lu mu def mu law lu wéri yaan African gon tap it African retap it But she never do nigga I can't make it Yow too ko jënd léegi damay may fit Fit te picc bi ramatu kenn du la nga mu ci laa Paradise moo du la baale ñu rekk di si kaa Eh, doy na doy na doy na déjà ñii xam naa ñan la ñii waa axlu brique lañ waa mbuur lañ ah ñii waa mbuur lañ ok léegi dañuy dem beneen région ah ay doy na xamee naa leen ñii waa Kaolack lañ waa kër gi ah. waa kër gi amagum nañu axlu brique ah. bu mbuur kër gi bu Kaolack mu des benn son déjà dafa am ku nekk si laan ah bon allo waaw salaamaaleykum maaleykum salaam soxna si yow suñu ñetteel son bi sax jotagul yow nga ñuy woo ah ok ah. Koura fan nga ñuy wooyee. Ouest Foire. ñu ngi lay déglu. Euh, man je crois que waa Akhlou Brick mhm. bu Ouest Foire déglu nañ sa réponse kon at tout à chance ah day joxe numéro Aïcha. pii damaa ko moom nag numéro bi bu ko jël de. <laughs> vas waxaatal moo xool. 866. répète Oui 0975. 0975. Oui, c'est ça. Allez, bonne chance Koura. Merci. Bisous. donc euh, dem nañ euh, Mbour euh, dem. Kaolack mhm. ñu dem Louga. un. un. doy na doy na doy na kii xam naa kan la. kan mooy nit dof bu Louga. yeah all right. am na ku nekk si laan. Aïcha bonsoir. bonsoir allo. jaajëf kilifa gi. waaw ah, maa ngi lay ziar la bu jàpp. jaajëf Philippe Baye Fall. jaajëf waay maa ngi lay woo Medina. Medina noo tudd grand. man la Ousmane. Ousmane bu Medina. Ousmane bu Medina oui. si ñetti son yi nga jot a dégg déglu nga Akhlou Brick déglu nga Kër gi déglu nga Nit Dof. invité PNG kan la war a doon. ah mais waaw kooku axlu birig la. ah birig. ok waaw Ousmane ah. waaw axlu. allez bonne chance kan ngay may dédicace grand. ah dédicace maa ngi koy may jëpp waa from Medina yëpp. ok waaw gis ñëpp. jaajëf Ousmane. jaajëf maam. ok donc merci à Ousmane donc Ousmane jaar na fi Médina la dëkk Koura jaar na fi Ouest Foire la dëkk. alors les région bokk ngeen si ñi nga xamante ne war nañ dugg pour wax seen artiste selon vous. Espagne waa France tamit si lañ bokk. ah bon. OK. T'as pas vu les numéros? Alors, c'est le 88 628 65 65 pour ceux qui sont au Sénégal. Oui, yep. bonsoir. Allô? Allô une fois? Allô deux fois? Ben, on dit bye bye alors, ou bien? Il, il a de chance, il est parti. Ouais. ok alors faites comme ces auditeurs ces téléspectateurs du moins euh, je suis donc Cora et euh, au 88 628 65 65 ou bien ceux de l'extérieur vous avez vu le numéro euh, en grand caractère euh, Peter si c'est possible 806 806 400 8 841 j'espère que j'ai asalaamaaleykum. maaleykum salaam monsieur. PNG. wi tur bi naka la. Eh, Pape Moussa Sagna. Moussa vous nous appelez eh, Kër Massar. Kër Massar Moussa naka nga def. sant suñu borom alhamdulilah. alo musa selon toi entre Akhlou Brick. kër gi ah. ak nit dof PNG kan lañ invité. tey ah? waaw. Eh, limaatal ma ñett yi. Akhlou Brick. kër gi wala nit dof eh, je préfère jël euh, nit dof nit selon toi bu Louga Ouais. Hmm. Ok, c'est noté. Alors, on te souhaite une bonne chance, hein? Merci, Moussa, avant de partir? Eh, à vous. Merci. D'abord, eh, euh, euh, mes Ce chanteur nan la? Simpi Nana Afro Afro Freiba. Simpi Nana. Aïcha yi mooy bomb. ok y' a pas de problème. merci beaucoup c'est gentil. merci Moussa. alors okay. merci à Ouest Foire merci le dernier le dernier téléspectateur avant d'accueillir euh, nos invités bien sûr. 88 628 65 65 s'il y a quelqu'un d'autre qui veut tenter bien sûr on a entendu Koura ak Ousmane nee nañ Akhlou Brick Moussa bu Kër Massar nee na nit dof allô bonsoir. Bonjour. oui bonsoir. ça va. c'est mademoiselle ou bien c'est madame. c'est mademoiselle. et vous vous comment. Adi. Adi tu nous appelles d'où. Mbour. Mbour. ah yow moom xam naa moom. sa xam xam nañ ki ngay tànn. Akhlou <laughs> Brick waaw. <laughs> xamoon nañ ngay tànn parce que Mbour nga dëkk. kon waa Mbour tëddaguñ ba heure bi ah. non non. kon yéen a ngi émission bi hello Ado. waaw ok waaw ce que mu cool. waaw waaw. est nice. moo ngi neex waaw. ok waa Mbour kan la ñu may dédicace tey. man hmm, kay waa man ma leen koy may Bisous, okay. Donc merci à Adji qui nous a appelé depuis Mbour. Alors waa Louga déggaguma leen euh, waa kaw Kaolack déggaguma leen. Ah. <laughs> Alors benn chance laay joxe waat rek une dernière chance ma xool est-ce que Louga wala Kaolack dina am kenn kuy dugg du ngeen mën a nekk Louga yëpp kenn amul crédit wala Kaolack yëpp kenn amul crédit. mais waa Louga heure bi boutique yi day teel a tëj tamit de. ah bon bonsoir. <laughs> oui bonsoir. comment votre nom. Allô, monsieur Allô, monsieur euh, Apparemment, il parti. Euh, allez, rapidement, un dernier téléspectateur qui va représenter la région de Louga ou bien la de Kaolack pour tenter le coup. On a entendu Koura de Ouest Foire, Ousmane de Médina, Moussa de Kermassar et Adji, bien sûr, de Mour.

oui. 010. 0 10 10. 0 10. 32 94. ok c'est noté. ok bonne ah. chance. kii. et tu fais dédicace à qui. Euh, à moi-même. <laughs> ok Demba c'est noté. jaajëf. allez merci merci mais puis doy na nag doy na quoi doy na xam naa ne téléphone téléphone bi instant moo ngi explosé. et puis te bloqué ñu téléphone bi. dégg nga boobu ba si kanam ah. léegi xam nga nu ñuy def. Ah, dañuy seetaan benn clip. invité bi clip invité bi la ñuy. voilà léegi clip boobu suñ ko seetaanee. Hmm. di ngeen xam PNG. kan la ñuy invité kan moo nar taxaw fii. ak ku gagné ak kan moo gagné. tu es yow right. alors le clip on let's go Peter. vrai suñu clip bi ñu xool kan la ci. Ok, alors on va dire félicitations à qui Monsieur Di le jeune homme depuis Thiès, c'est ça Donc waa Thiès dama bëgg ngeen tàcc seen bopp encore une fois. Alors waa Thiès euh, yéen a gagné lii euh, gis ngeen am ngeen benn bon wu la parisienne. Boulangerie, pâtisserie, restaurant, ça se trouve aux Almadies hein. Yeah, ah, ay mos dolli. Vous avez gagné aussi des bonbons mos dolli. et autres. Alors Demba depuis Thiès euh, qui est en train de nous regarder félicitations à toi donc le bon il est là hein. tout à l'heure dinañ la wax bien sûr lan nga war a euh, gagner en accueillant bien sûr nos artistes. ok alors ils sont là ils sont déjà là. ça c'est le groupe Kër Gui. Kër Gui. <laughs> la man non eh bi du ma ko nuyu parce que bu la def année rouge bi. ah bu sawar ah bu sawar bu sawar bu <laughs> eh. <laughs> a ànd sa copain ngi noonu tey ah. gis nga tey fi laay far quoi. tey anyway yéen a bokk groupe. yeah all right mais gars yi kontaan nañ si seen teewaay fii si Kër Gui Hello Ado TFM PNG vous remercie d'avoir accepté l'invitation donc on vous laisse euh, prendre le micro et puis saluer Salut les téléspectateurs tout ce beau monde qui, qui nous regarde actuellement da ngeen région yëpp ñu jot a. salaamaaleykum waa Thiès salaamaaleykum Demba tey Thiès laa dëkk quoi. <laughs> Ah, ko si yoon bi. copain boobu si seetaan ci yoon bi salaamaaleykum wa adduna bi yëpp. dëgg la. fépp fu ak fépp fu nit nekk. ok bus nga dem Thiès yéen. yaay gars yi def tàng leen fa. si si si lu bari. moo tax waa Thiès gagné gañ. non ay ay lañ ay borom bopp lañ. ok ñu bàyyi la nga nuyoo. yee salaamaaleykum Sénégal gi yëpp di wax Demba félicitation di wax aussi ñeneen ñi tenter seen chance bon. seen jinne yi ñoo leen di suñ <laughs> dara mais ci biir bon voilà kon donc gars yi nañ sax ay jumeaux ngeen ah. kenn xamul nax kii mooy kilifa kenn xamul alors vous allez vous présenter man maay ji quoi ah yaay ji ah ji waaw ji alors ils sont nombreux Hello Ado nekkul Sénégal rek euh, le yem c'est le monde entier y des gens aujourd'hui ils sont assis au niveau de leur fauteuil mais ñu ngi door a gis kanam yu mel ni ñu ngi door a gis clip bu mel ni donc on va permettre aussi à ces à ces gens qui viennent de regarder pour une première euh, ces deux personnes invitées par PNJ de se présenter et de leur dire exactement euh, qui est qui et qui est qui waaw xam naa ne man waru moon sax njëkk wax ne man maay présenter kii kii mooy kilifa kilifa kër yi ok man man maay caat bu groupe Kër gi. ok donc kilifa ak caat. kilifa Kër gi. ok donc seen base fan la parce que sànq si biir émission bi ji daf ñu ne ku nekk dafa am base artiste bi mbuur la artiste bi Louga la artiste bi Kaolack yenn waa kër gi kilifa ak caat fan mooy seen base. juddoo yaroo màggee Kaolack. ok donc vous êtes de tous les deux. <laughs> waaw ñoo dend ñoo dend ñoo dend kër ñoo màggandoo xamante nañ avant ñu judd de des frères de même père même mère wala bien des amis. bon xaw ma xarit lañ xaw ma <laughs> frère lañ xaw ma la ne en xamante nañ avant ñu judd parce que suñu suñu ñaari yaay yi euh, ñu ngi ëmb ku ci nekk te ñoom ñaar ay xarit lañ ñoo doon toog yaayam mooy sama mooy sama magu yaay la daanaka ci koñ bi yëpp. donc euh, ay weer la ñu magante donc mun naa wax ne daal ñu ñu daal ñu ngi noonu xaw ma lan lañ. ok kon Pi tey waa Kaolack ñoo fi ñoo ñoo fi daje ah, parce que PNG tamit Kaolack la ñu yar. justement voilà. yaa ngi gën a nëw temps ñu doon jàngee yaa ngi faa lekk image clinique ba ñuy dem seen ay conseil di leen seetaan gars yi def yaramu neen nii. ay jubamar géey nii waaw. ay jubamar yooyu ñu koy tasaan. <laughs> loolu ça date de ça date de très longtemps. donc le groupe Kër Gui sont les invités de PNG amis téléspectateurs ce soir. Kilifeu et Chat euh, pour euh, toutes les personnes qui en ce moment sont en train de regarder euh, Hello Ado alors les gars cela fait très longtemps gars yi di ñu message di ñu woo PNG waa kër gi kañ leen gis ci Hello Ado donc saa yu ñu nekkee rajo suñu nekkee tele quand on était dans l'autre station de télé au niveau de la RDB on a une fois fait émission avec vous saa yu ñu amee rajo tamit ñu ne leen ah gars yi soxla na leen vous êtes toujours disponible pour PNJ disponible pour nos auditeurs pour cela merci merci. Mm. ok alors lu su loolu weesoo les gars vous avez sorti quatre albums. Euh, quatre albums la waa kër gi génne donc mm. balaa ñu ñëw ci album bi bëggoon naa ngeen wax ñu seen seen historique euh, tey le groupe kër gi euh, ils sont fondés sur sur quoi par exemple pour construire famille bi le groupe kër gi c'est quoi kër gi. en fait kër gi bu ñu ciy wax pour ñun le nom c'est pas c'est pas un nom qui a été choisi comme ça au hasard mm-hmm. xam nga. pour raconter un petit peu, petit peu l'histoire de notre enfance. On est, comme nous l'avons dit, une famille, mais un groupe de hip-hop qui s'appelle la MIFA, voilà, la famille de Fekhawa Ghost okay. Après, période où nous créé un groupe en 96, les noms des groupes à l'époque c'était Black, Possi, Nangam, Sangam. Nous, on a vu, on s'est dit, nous sommes des Sénégalais. Uh -huh. Nous faisons du hip-hop, une musique qui vient peut-être d'ailleurs, uh -huh. mais on peut le, on peut l'adapter avec une, une réalité socioculturelle. Nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, amoon na taaw taaw bàyyi na. Mm. am waaw ñu ngi koy big up suñu suñu suñu suñu frère la moom aussi bon donc juste par rapport ak suñu suñu suñu passage suñu suñu comment dirais suñu yoon suñu trajectoire métti bi métti. xam nga ñu def premier album ñu changé génnuñ ko après moom si la bàyyi dem nekk ci yeneen waar quoi mi ngi mbambiloor ñu ngi koy nuyu di ko bigga non comprendre ma da ngeen génnee premier album ñu censuré mais génnul génnul dañu enregistré job ba desul lu dul mu war a génn après ñu c'est un album de six titres mu am motion de censure sur quatre donc mënul woon donc ah, xanaa waxoo leen si jàmm album boobu à l'époque c'était contre le régime de fois ñu bëri si si suñu trajectoire on on s'est toujours opposé au pouvoir, pouvoir en tout cas mm. bi nekk en place. parce que pour ñun <laughs> euh, ñun nous sommes nous sommes la voix des sans voix ñun ci peuple bi la bokk. ok ku mu munti doon boo ñëwee au pouvoir je sais que ñun éternel opposant la doon duñ mus a. kon yéen du ngeen mus a xanaa du ngeen ay citoyens <laughs> sénégalais gars justement loolu moo tax nangu quoi. citoyen la doon. donc citoyen boo ko nekkee. dafa am booy jouer rôle bi ngay jouer mooy da ngay ok soo observé da ngay nettali li sa bu fekkee ne da nga ne yow yaay waxal askan bi da ngay mm-hmm. leen di waxal li ngay dund ak li sa ñi ngay représenté di dund mm-hmm. sooy représenté peuple bi il faut que ngay waxal peuple bi kàddoom muy jib ci kaw parce que moom mënu koo waxal boppam foog mu am ñu koy waxal te boo xoolee en général Sénégal ay ay assemblée nationale yooyu da ngay am ay deux député yu baax uh-huh. benn bu baax wala beneen bu baax mais la majorité tàcc moo leen fay yóbbu ak nelaw. donc ñun ñooy député yi laajul salaire. <laughs> ça c'est clair déjà am na ku kontaan ba bëgg wax ak yéen ñu jël ko bonsoir si 88 628 65 65 allo. oui allo bonsoir. Euh, sëñ bi naka nga def. waaw sant yàlla bu baax. tudd ak fan nga ñuy wooyee. Eh, wax Grand Boury. eh Grand Boury ça c'est HLM Fass. HLM Fass je viens de descendre euh, ma nag ne seetaan ma. Euh, allo. oui on vous on vous écoute. waaw ma ma je viens de descendre ma ne bu taal télé bi yem si ma ne bon xaaral ma toog concentré wu ko booy yi. effectivement. Euh, je ne cesserai jamais de vous de euh, encourager. merci c'est gentil. en en plus en plus ñi ngeen invité booy kër gi c'est des booy gosses qui sont très très très positifs. Uh-huh. surtout moi ma si euh, comment il s'appelle. Tchad et Kilifeu. kilifa kilifa on habite ensemble mu nekk boy bu très gentil boy bu très positif à Nord Foire ah, donc ma suivre de suivant ba pas trop rap rap suivre de temps en temps seen album yi di déglu son yi di déglu mm-hmm. aussi seen seen yi uh-huh. donc ma leen di encourager encore une fois fi ngeen jàpp foofu la jàpp leen bu mun a dëgër na gën a dëgër quoi franchement on est on est de tout cœur avec vous Euh, man vraiment li ma leen gis ngeen gëm seen bopp ñu gëm seen bopp ngeen loolu rek moo tax ma ma jàpp leen gën leen naw. mais amul benn suggestion wala benn conseil bi ngeen di def. voilà mais conseil ma def pour ñuy gën a redoubler d'efforts c'est-à-dire di di di euh, organiser des des spectacles pour la jeunesse parce que gars yi booy fii au Sénégal dañ leen soxla. ok bon dañuy toog àgg leen dégg bon ben c'est vrai que il bouge beaucoup il voyage beaucoup. Mhm. mais bu doon sago ñuy organiser des trucs dans les écoles ou ba. des Sénégal. mois organise euh, vraiment benn spectacle boo xam ne gars yi dañ leen gën a suivre quoi mais dañu jékki-jékki laaxutu doo leen doo leen gis doo leen dégg loolu voilà. ay boss lañ dañuy voyager rek ay star lañ. waaw <laughs> star lañ man je connais parce que très souvent à l'aéroport donc euh, je sais que il va être beaucoup. mais bu ñu bu ñu concentré a concentré euh, au Sénégal vraiment dina mën a aider boy yi surtout du dem def des tournées tamit à travers euh, le pont fin du Sénégal parce que gars yi dañ mhm. gis nit ñi surtout bon ils sont très engagés. Ah. donc bu ñu engagé il faut que tamit ñuy dem dugg si biir biir àll bi di gis yenn yenn yenn yenn booy di mën a waxtaan ak ñoom hmm. booy di sottante comme soo xalaat parce que lañ ko soxla. ok Sénégal soxla nañ lool soxla nañ genre booy mel ni mel ni ñoom ko ok voilà. allez merci en tout cas pour l'appel. merci c'est vraiment gentil. Merci, ça c'est Monsieur Bourri. Merci à lui, merci à sa femme et à tous ses enfants connectés depuis HLM Fass. gars yi li moo nekk dernier album bi nga xamante ne moom la waa kër gi génnee encyclopédie. Alors avant que ñuy ñëw si lii gis ngeen base bi fu mu commencé benn album boo xamante ne dañ ko génne dafa naroon génn ñu censuré ko mun na ñu wëy si ay wëy yoo xamante ne si nguuru Abdou Diouf la. Donc ban album moo nekk seen premier album mooy bi nga xamante ne en 2002 mu tudd Kenn Buggul. Ah, vas-y waaw kenn bëggul moo donc mooy nekk moo nekk donc premier album bu génn sur le marché. Uh-huh. Mm-hmm. mu génn en boobu moom censuré wuñ non censuré wuñ bu mu génn en 2002. Uh-huh. boobu aussi ñu wax ci si lañ waxoon si lañ waxoon Abdoulaye Wade mooy Yaama Télé. Yaama Télé waaw si lañ ko si lañ prix Nobel de Feeñ Télé prix Nobel de. Tukki cette année-ci Nobel ont été remportés par un seul et unique président. ok xam nga bon donc ñu. ñu koy critiquer gars yi naan loolu ay tooñ la woon wala dëgg la woon parce que suñu xalaat lañ doon wax xam nga Abdoulaye Wade dafa ñëw rek jël réew mi rek automatiquement ñu rendre compte que ne buy commencé di ñëw ci benn côté parce que stade stade de l'amitié la defee prête la prêter serment uh-huh. drapeau parté moo fa nekkoon le bleu et le jaune uh-huh. drapeau Sénégal tuuti la fa uh-huh. ñu ne jël na waaye ñu wéy fa hymne boo xam ne moo ko créé njëkk ko wéy sax a la place de l'hymne du Sénégal ñu ne jël na waaye ñu tekki tuuti ñu peinture bus yi jaune ak bleu Dakar dem dikki couleur partem xam nga ñu commencé naan ah ñu ne waaw def ci ay quelques weer mu def référendum masqué ci affaire jigéen ñu ne i eh, attention ñu commencé wax gars yi naan ñu bàyyi leen góor gi mu liggéey. waaye da yàkkamti bàyyi leen kii defagul deux ans nangam. ñu ne attention attention mhm. Mhm. Mhm. bon artistiquement ku nekk da am vision ñun suñu vision artistique c'est toujours. de faire de telle sorte que. Euh, di parfois di wax loo xam ne nii ñu ñu ngi koy gis ñëwagul. ak aussi di nettali li nga xam ne moom moo nekk ci suuf quoi donc prix du match kër gi heure bu génnee nga gis. que ne à 80 pour cent c' est des trucs qui concernent que li askanu Sénégal di dund wala li askanu àdduna bi yëpp di dund. 20 pour cent rek nga gis loo xamante ni ñun suñu dund personnel la. mais moom censuré wul boobu kon il est démocrate. mais oui oui oui. pour, être honnête, pour être honnête il a permis quand au Sénégal mu am benn évoluer ci sensu. liberté de la presse xam nga sur le radio privé yi ibbi télé privé yi ibbi côté boobu mm-hmm. tout n'est tout n'a pas été mauvais avec Laye Wade okay. Mm-hmm. tout n'a pas été mauvais mais du tout alors euh, am na yu bëri yu baax yu mu réalisé yu mu def honnêtement il faut être honnête pour le dire mais mm-hmm. peut-être euh, voilà am na si nit comme président yëpp dañuy def ay erreur te ñetti mandat kenn duñ ko nangu kenn am ko fi donc avant ñu ñëw si albumu 2004 bi allo bonsoir allo allo oui bonsoir monsieur vous allez bien. waaw sant alhamdulilah. yaa tur bi naka la ak fan nga ñuy wooyee. Kaolack. Kaolack tur bi naka la. Dj Omay. pardon. allo oui c'est Dj Omay. Eh, Dj Omay. gars yi wuy leen. Oh. <laughs> waa Sën Saalum waaw looy looy yëgal sa baat. <laughs> ñii waa jaajëf ñu paas la waa kër gi nga wax ak ñoom grand. mooy Bambara ah, boo gisee gémmiñ nga wax. di jéem a gërëm nga xam en ah. mhm. parce que euh, lu ñuy def dañ ko gëm. en fait euh, ànd nañ def ay tournements ak ñoom parce que connaît très bien. Mhm. mais gars yu gëm seen bopp lañ. Euh, dafa naa leen wax ñu gën a di gën a continuer ci lancé bu ñu nekk rek xam na ne affaire yi métti na. Mhm. mais Saloum Saloum gëm seen bopp lañ. en général man du ma wax ci média ñoom ñoo tax a wax. mooy door a dugg ah direct bi maa koy soog a dégg télé wala rajo. naka Kaolack naka Sën Saalum. wala il est ah, lii moom lii moom doy na waar Omay ah, kii moom. on a roulé nos bosses ensemble def nañ tournée partout ci région yi gën a xóot moo doon indi Sonom. xam nga indi Strade indi lépp. te mosuñu laaj ay xaalis ñoo bokkandoo organiser ay show yu mag Kaolack. Mm. et bu ñu même bu ñu defee beneen conseil feneen micro yi day ay micro personnel yu ñu doon dencal. noo daf moo ñu jëkk def star boobu Kaolack. moom moo ñu bokk na si ñi ñu njëkk a def star. ay seen micro dafa war a nekk pour yéen kese seen ay. yii mm. non franchement chapeau bi. kontaan nañ aujourd'hui il est gérant de Sun Saloum. mais du loolu rek il gère plein de choses jeune dynamique mooy li ñuy wax aujourd'hui place à la jeunesse. mënuñu lu ñuy def. mais Sénégal a besoin d'un second souffle place à la jeunesse euh, Omar yi vraiment bon vent big pour lépp nit ñi ñoom maar gars yi ngay mm. joobal yëpp woon loo te tout récemment PNJ demoon nañ fa mois décembre bi mois décembre benn soirée bu nice bu ñu fa defoon waa Kaolack yëpp ñëw wuyu si si boîte boobu Sën Saloum donc di ko wax job bi nice na na gën a góorgóorlu donc y a que de Kaolack qui sont là des animateurs de Kaolack des artistes aussi venant de Kaolack Papa Ndiaye Coppet Papa Ndiaye Coppet fu mu ah, jógee ah. ah Jila Boji. waaw Jila Boji <laughs> ah l'archevêque Benjamin fan la ah, jógee gis nga ah gis nga. xam nga gis nga voilà mu ngi. y'a que des artistes donc gars yi avant que ñu ñëw si dernier album bi 2004 euh, ngeen génnee lii. Raam Raam. ok donc c'était un album de quoi. lii raam lii raam ci ñàkk ba la jëm c'est une expression wolof buy wax ne attention aussi tamit toujours mm-hmm. di alerter. Mm-hmm. Mm-hmm. boobu moo al boobu c'est le premier album bu ñu def mu gën a ibbeeku au niveau international aussi si ñun. boobu du woon affaire politique. am na si bëri sax oui on a parlé aussi du si ñun à chaque fois on parle de ce qui se passe dans le pays. et ce qui se passe dans le pays soit c'est politico-économique politico-social ou politico-politicien. c'est comme ça. parce que politique mënoo ko ñàkk génne mënoo ko ñàkk def. même booy wax ci sa bopp sax yaa ngi parce que yaa ngi ay mbëggeel ay affaire yooyu. la critiquer sa bien châtie bien. ñu suñu album yëpp mbëggeel la. la c'est que parce que soo bëggee sa réew. mooy da ko bëgg. wax nañ ne qui aime bien. châtie bien donc ñun lépp lu ñuy def mbëggeel la. dañ ko teg ci bëgg ci lu ñuy def donc lii raam nekk beneen ouverture ibbi yeneen i xam nga yeneen i buntu. Mhm. voilà quoi. ok alors en 2008 non. condoléance condoléance. bon alors am na gars yi pour ñu prononcer ko dañu ñëw rek wax non condoléance mais exactement titre bi lan la. parce que loolu dañu utiliser benn figure de style boo xam ne mi ngi tudd anagramme. Mhm. c' est une figure de style qui te permet d' utiliser couper un mot en deux syllabes qui donne naissance à deux autres mots. c' à dire boo koy lire ak boo koy dégg. Mhm. du bokk ko soo koy dégg noo kon noo condoléance la lay jox maanaam jaale. mais boo koy liir non kon doléance la lay jox. mais ci biir album boobu dangay gis ne que titre yi amoon na ay coup de gueule coup de gueule xam nga mm. ay euh, conséquences de cause dañ ko vraiment parcours du combat à temps ñu def parcours du combattant soo koy li dégg di wax par parcours du combattant mais beaucoup li nga gis parcours du combat à temps tu vois ñu jouer vraiment ci figure de style parce que ñun aussi on vou on a toujours voulu que suñu ay album doon ay support pédagogique pour permettre aux gens aca dafa am ku teg ci ligne bi jël ko uh-huh. allô bonsoir bonsoir oui bonsoir. Euh, mademoiselle ou madame c'est mademoiselle waxal ak ma mademoiselle mademoiselle na Mademoiselle. waaw tu t'appelles comment tu nous appelles d'où? ah c'est Nadia. Nadia. Nadia ça c'est Nadia. de euh, l'Immaculée Conception c'est ça. oui. foofu laa ah bon. waaw mais bu kaw la. <laughs> pour mu leer. <laughs> alors Nadia. yéen a tax ba nii tëddeewu ma ma toog ba heure bi di leen seetaan. ah Nadia kontaan nañ yow. waa kër gi kontaan nañ. kontaan nañ. on est très content Nadia. je vous l'avoue yéen waa kër gi courage quoi. oh là là oh sa mardi gras mardi doo leen invité sa école. invité naa la ñeen ñëpp. dinañ ñëw mardi gras. <laughs> va pas. le va pas. kon waa kër yi dinañ ñëw foofu kon. ok kon ñu ngi leen di xaar. allez tu fais dédicace à qui Nadia. à El Hadj comme qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. El Hadj Miss Fati

Euh, maanaam yónnee ma gars yi dafa mel ni gars yi egsi nañ de. indi ma bagage yi waay ah. donc de passage waayu Immaculée ñoo leen def euh, gros coucou. waaw mhm. ko. ah dafa mel ni am nañ surprise de ah merci ah waay grand ah merci waay maane. gars dafa mel ni de ma xool. ah lii de ay glace la. surprise. ah mais yéen nag yéen tout le temps saa ñu amee émission PNJ gars yi dañu leen di yàq nag. di leen ni ay glace la na fogoon na fogoon na c'est cool ça ah. ay te ñu xool gars yi waa parisien lu ñu indi. tey sama ñaari caméra yi ñoo bokk Dream Team équipe de football maa ngi leen la suñu match ah. mais gars la parisienne ñu ngi yàq waa kër gi ah. ñu xool glace bi ban ban couleur la yow lañ la indil. Fall eh, jëlal li waay. wani la oh, ana ana ana bi ñu xool na neex na ah ñamal yëkkati ko waaye gars yi gis ko yëkkati ko. Eh. <laughs> gars yi gis ngeen ah donc c'est la parisienne donc mention spéciale à eux ñoom ñoo indil glace yu neex yi waa kër gi. Euh, kilifa. lan ngay wax waa parisienne ñu ngi lay seetaan. glace gi neex na parisienne. Hmm. lan lañ la indil yow est-ce que bii bëgg nga ko. vanille ouais. vanille. si mooy sa préféré. Mm-hmm, mm-hmm. ok kon booy Thiès bi lii la gagné. loo koy wax moom booy Thiès euh, bi waaw Demba. waaw moom moo gagné bon bi. bon la parisienne gagné nga glace bu neex en tout cas. Mm-hmm. demoon nga jëli ko. boulangerie pâtisserie restaurant La Parisienne. La Parisienne. donc mu ngi nekk aux Almadies. Mhm. voilà. Okay. ay croissant moo gën a neexati sax. Ah matinal bi ndekki noonu. waaw kon jeex na kon heure boo fa demee lu la neex commandé. fajar bi l' équipe de nuit Augustin et toute son équipe euh, mention spéciale vous maa ngi xaar message yi yeneen tur yi nga xamante ne tey jamono ji ñu ngi liggéey la parisienne euh, tard la nuit donc di leen remercier merci à tous les sponsors qui accompagnent Yeah. dans Hello Ado gars yi ko bonsoir am na ku nekk si line bi. bonsoir allo. allo yow allo. allo participer dans l'émission. acca bisimilah. tu es en direct on t'écoute. man la Youssou Lam. acca bisimilah foo ñuy woowee. man maa ngi nekk Dakar mais maa ngi dëkk Kaolack mais xamu leen ma xam naa ni ngeen war a xam samay grand frère Lamine laa dëkk. waaw ah, nga Lamine ok ñoom Penda Lam Théo Lam ñoom Théo Lam rakku Théo Lam la ñoo bokk ndey ak baay. ah ok xam nga mënoon fubal Théo. sori ñu suñu nga dëkk daanaka. Théo daawul woon fubal. non xam naa ne man ak ah, man ak Omar sa rakk ñoo bokkoon classe. dëgg la. waaw ñu lay déglu dama doon grand yoo xam ne dama leen yàgg a suivre da ngeen ma yàgg a neex. dëgg la. parce que yéen yéen a ma yar peut-être mun leen ma xam parce que temps boobu xale laa. dëgg la mais ji yàgg a dem seen concert affaire yooyu. muy sedd. parce que seen conseil décembre muy sedd. dëgg la ñuy ñëw di ko jaayante kaw la. dëgg la. mais yàlla yàlla yokk lépp. moom moomin yokk lépp yokk ñëpp. yàlla yàlla def ba tey fu musique nigériane yegg yéen yàlla ngeen yegg fa ko raw. amiin waay amiin jërëjëf. parce que da doon ñoo xam ne suñuy fierté ngeen. merci mon frère. non ñoo ko yéen samay frère ngeen bu dul dara xam naa leen xam seen frère. dëgg la ñàkk samay frère. dëgg la benn lañ. dëgg la dëgg la ñoo ko bokk. yàlla na yàlla yokk xéewal yi. allahumma amiin dégg leen bu lépp lu leen séntu ci midi gi yàlla na ko yàlla yokk ci barke. allahumma amiin allahumma amiin jaajëf bro merci kontaan nañ trop. c'est pour la première fois. j'appelle mm. pour une émission parce que. Mm. dafa gis ñoo xam ne. c'est mon fan la bro merci ça fait plaisir. en plus ba leen di déggee bëgguma yàgg ci ligne bi parce m am la dëgg la bro may respect kontaan merci beaucoup ah. ok pour ok donc ça se que ils sont tous en train de regarder gars yi fu nekk la ñuy woote après nga liiral ñu quelques messages venant des européens. alors bi mooy album. ah lu bees la pii am na lu bees lu génn nii. ego science. science ego xaaral ko après ñëwaat. ayca let's go. mais gars a de gars yi nu mu demee noonu. ah mais bii de sa gars sa gars ni ñu ngi door si glace bi une fois merci à la. glace yi coxu na. ah waaw neex na. Hmm, coxu na. <laughs> nice. rajo bi neex na. neex na mais pire ñi ko mënal doon wér. coxu na dama teel clip bi quoi mënoon na bàyyi mu daw ba si kanam. comme ça nga door si glace yi euh, la parisienne en train de regarder l'émission Ado alors les gars euh, clip nice bi nu mu tudd. science égo. science égo science. donc ci album bi la bokk. mais li mais li fii du Sénégal la lii Sénégal la. ci album bi ci tome 2 ci. ci règlement de compte. ok yaa tome 2 la nekk moo nekk euh, ñaata moo nekk. Euh, septième septième septième titre ok alors double album euh, alors lii man sincèrement c'est c'est c'est c'est c'est une première ah ngeen génne album boo xamante ne. Eh, da ngay tourner gauche nga gis benn CD nga tourner droite nga gis beneen CD mais gars yi original album soo koy ut donc da ngay jënd albumu euh, kër gi ah. donc da ngay dem si yenn yenn box yi nga gis ko carrément gars yi teg ko nii maanaam dañ koy namoo quoi c'était pas chose facile de d'avoir un double album les gars. franchement surtout ak euh, c'est-à-dire bon c'est euh, jamono ji nii euh, c'est très facile de faire. Euh, un quadruple album mhm. ou truc quoi mais est-ce que dina nekk un travail très sérieux quoi parce que li ku ko xool xam ni c'est du sérieux mhm. parce que kër gi kër gi c'est du sérieux ñun newuñ ci ay affaire de tapali mhm. ay affaire de jël gravé ko après tout def ko ci benn support bu ndaw t'as pas besoin d'acheter des hologrammes affaire yooyu c'est clair c'est clair instant aussi je lance appelle euh, à nos frères et nos confrères uh-huh. de de de de de reste d'être plus sérieux okay. parce que ce temps-ci surtout ce dernier temps dafay gis gars yi ni ñuy génnee album uh-huh. contenu bi rek nu leen neex la ñuy génnee album nu leen neex la ñuy génnee vidéo contenu bi rek lañu lañu ci la ñuy focus uh-huh. mais support beeg affaire yooyu fi mu war a jaar franchement gars yi dañ ko dañ ko commencé rey quoi okay. Okay. parce que ils se disent que ni woyu les les CD ne vendent plus alors que ça c'est faux c'est pas vrai album bu ñu ko defaree mu jaar yoon day jaar te ta pas besoin chaque année nga génne album ou chaque deux ans album bi mu ngi génn depuis 2014 mm-hmm. instant bi nii commencé guñ sax promotion bi bi mu génnee ba léegi on a fait 2014 ak léegi on a fait 106 ci àdduna bi 106 villes 106 villes ci àdduna bi ñu dem demaat fu ñu dem affaire yooyu jàppal bàyyi Afrique Sénégal te euh, en vue li des fii ba le prochain album di génn secret d'état li des ci ay tournée mënuma la wax nu mu toll. kon album da ngeen am titre bi déjà. liggéey de non on a déjà le le titre du prochain prochain album parce que nous c'est un plan de carrière. ban année la boobu ñëw dans deux ou trois euh, peut-être 2019. Mm -hmm. peut waaw peut-être 2019 quoi. plus yeah. tard plus tard bu génnul 2019 2020 lay génn. 2020 la sama jour de dina <laughs> la entre album live. entre temps benn album benn album live. live boo xam ne day defaat day réviser révisiter lépp lu ñu defoon. ok kii quoi mais Thiat euh, clip clip bu ñu seetaan léegi nii ça date pas de longtemps te defe naa du Sénégal fan ngeen ko tourné nii quoi imagine yi. Washington Washington lañ ko tourné DC. c'est aux États-Unis fi ñu ko tourné nii mu ngi benn quartier la bu nekk euh, biir DC bu tudd bu mu ngi tudd Chocolate City. Chocolate City parce que Washington ay. noir ñoo mais nii lu ko waraloon nii. parce que sound bi li muy wax moo ko laajoon quoi. Mhm. sound bi affaire science lañ doon wax affaire xam nga ay vraiment astronomie. ok c'était ça quoi c'était ça loolu loolu trip bi ça c'était énorme ay moyens yu colossaux lañ def. pourtant on l'a tourné en 2013 hein. ok 2013 dañ ko tourné. ok mais 2016 la génn. monsieur Boury bu HLM Fass woote na sànq mais il a euh, énuméré quelque chose de très important nee na souvent du ñu gis kër gi ci ay spectacle fii Sénégal vous êtes plus concentré en Europe France États-Unis Allemagne Angleterre Italie souvent foofu lañ leen gën a déggee seen ay concerts seen ay spectacles. Euh, est-ce que vous donnez assez de temps pour euh, les Sénégalais pour consommer bien sûr ces, ces albums, ces, ces du groupe Kër Gi est-ce qu'il y a des spectacles du groupe Kër Gi tout avant que ñu ñëw ci concert Paris bi ngeen war a am. xam nga xam nga xam nga boo génnee ñu ngi génne album bi 2014 de 2014 à 2000 début 2016. Mhm. début 2016 ba 2014 ba janvier ba mars mhm. Sénégal la ñu nekk. ok di concert. Mhm. on a toutes les villes du Sénégal. toutes les villes du Sénégal toutes les grandes capitales. def nañ ko. ci ay stade tëjee ko ak suñu vingt ans muy le 12 mars bi daaw uh-huh. au Grand Théâtre bi nga xam ne yéegal nañu cinquante cinq musiciens sur scène une symphonie après on s'est projeté pour dem aussi nag quand xool yi ay ce qui se passe jaay ko ci mbedd mi et jusqu'à on a beaucoup de dates yoo xamante ni à l'extérieur mais Sénégal am nañu ñu leen di waajal ñu ngi waajal ñu ngi waajal un festival à Kaolack boo xam ne trois jours lay doon uh-huh. ñuy waajal yeneen ak yeneen mais rareté bi fii au Sénégal c'est dû au fait que on a un calendrier non seulement chargé mais aussi pour ñu jouer Sénégal ci yenn yenn yenn spectacle yi du yomb du yomb parce que ñun dafa dafa am lu ñu lu ñu visé xam nañu lu ñu def xam nañu lan la ñu jaral xam nañu fan lañ ko jaar fan lañ ko téye du ñuy fay quoi gars yi non ñu bëri nangu ñu fay c'est-à-dire cachet yi ñu nangoo fay yenn artistes yi ñoo defal leen playback nanguñu ko fay yenn artistes yi def seen corps def seen joxe seen gëm c'est un appel qu'on lance à à nos amis. aux producteurs aux organisateurs. aux, aux artistes en majorité. parce que da ngay bañ yenn cachet yi ñu ne la pourtant diw li laa ko fay de. surtout les écoles écoles yi nañ bàyyi loolu ñuy def. parce que su artiste defalee la xéwal nga dem ci sa morom beneen artiste wax ko ne ko temps laay wax yow mu ne la non man du jël loolu nee na ko pourtant de pii defal na ma ko. ok c'est mauvais baaxul. ñun tout le monde le kër gi dafa cher. Mhm. c'est vrai on est cher. Mhm. parce que li ñuy def xam nañ ko. Mhm. xam nañu lan yan moyen lañ ci débloqué pour def ko xam nañ fan la ñu bugg a yegg Youssou Ndour moo ñu ko mos a wax benn jour mu nañu euh, booy li ngeen def bu ngeen ko joxul valeur kenn du leen jox valeur dégg naa ñu ne da ngeen cher mais c'est important nga def cinq concert benn bu nekk ñu fay la cent mille nga def benn concert ñu fay la ko un million moo ko gën tu vois que je veux toll te bon je ne dis pas que en plus tollatuñu fu ñuy fu ñuy franchement euh, euh, on n'a plus rien à prouver ci ñu nekk fii Sénégal mooy di teg ay challenge comme bi ñuy feete suñu vingt ans dañ ne dañuy def loo xamante ni pour la première fois ñu def ñu gis ko en Afrique. mooy jouer ak la symphonie la chorale la musique de de de des forces armées et plus notre bande. Mm. on a joué avec cinquante cinq musiciens. Mm. c'était une première en Afrique et jusqu'à présent c'est une première en Afrique. ba pare def entrer un million une première dans l'histoire de de de la musique de la musique en général. amul fenn ci àdduna bi. c'est-à-dire ci yooyu la ñu nekk ay challenge. ay léegi ñooy def lii kii nii. mais ay défi quoi nekkatul toj concert wala teppi concert wala xotti concert. franchement. ok alors Peter soo amee ku nekk si line bi euh, parce que j'ai du mal à avoir euh, un retour ici. 88 628 65 65 yéegalal ma ko rek si kaw ah, ñu jël ko ah jarul nga may wax. allo. allo. allo oui. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si na def. maa ngi fi alhamdulilah. sant yàlla na sant yàlla. Oh, waa kër gi laa waxal. waaw ñu ngi lay dégg bu baax. waa ay gars yu baax surtout Thiat man la Aïcha. ah Aïcha naka mu. c'est la première fois may woote ci télé. ah tey bravo Aïcha. non non kër gi boo yow saa yoo invité kër gi. ah waaw gis nga gis nga gars yi comme chaque jour dama leen di invité ah. mais kii moom mais comme kii woote na moom émission bi am na xéwal. yaa ñu gën a baax Aïcha. <laughs> non caat caat moo baax rek moo tax moo jaral. may woote yow caat maa ko gën a baax nga naan caat a baax. waay <laughs> Mm-hmm. dëgg la donc euh, maa koy encouragé ci li muy def euh, et puis voilà sama kees gaañ la. waaw dëgg la kilifa aussi voilà. bëggatuma baax euh, dégg nga ko li moom mu ne bëggatul nga nuyu ko. dégguma. waxal waxal kilifa non comme da nga non comme ci caat nga njëkkee nga ne caat dafa baax man bëggatuma gedd naa kilifa xaw ma ko mais xam naa leen ko gaañ bu baax la. waaw ah, gedd naa. mu ne. gedd naa. lu tax nga gedd. Ah, parce que gedd naa. c'est que leen waroon yemale da leen yemale parce que ay mag a rakk la. da ah, leen war a yemale taat a leen a yemale. dafa mel ni nga ne pii nga bëgg rek bëggoo ji. waaw si dañ koy yemale. waaw man man waa dëgg la dëgg la ñoom ñëpp ñoom ñëpp laa yemale mais xam naa ne daal caat moom ah, moom sama gaañ la sama gaañ la. <laughs> sama gaañ la ma ñoom ñoom soo ñuul ma ay télé heure. dëgg la dëgg la. dafa mel ni kontaan naa trop am na loolu sax la bëgg kontaan naa trop ça fait hmm. plaisir. kon jeex na waaw. Eh, ñu jokkoo jaajëf. ok ok merci. merci Aïcha. ok les gars on est à 5 minutes de la fin de l'émission on me signale. Euh, déjà euh, oui déjà émission bi dafa neex dafa gaaw dafa fun. mais il paraît que da ngeen bokk ci 20 artistes yu war a représenter Sénégal pour hip hop Galsen en France le 15 avril est-ce que euh, tey mën nañ am confirmation boobu ak ah, naka ngeen koy préparer. mais dëgg la effectivement ñun euh, comme ni la ko kii dafa waxee léegi on est des partisans. de bonnes initiatives. Mm-hmm. ay challenge ay défis moo ñu neex. c'est pas évident ça n'a jamais été fait au préalable au avant. Mm-hmm. Euh, Sénar Vision ñoom Tafa ak ñoom Djigaak jël. lu toll ni déplacer plus d'une vingtaine de groupes sénégalais mm-hmm. hip hop yóbbu leen Paris ñu joué ci benn salle bu mag. une journée loolu lu yombul quoi. et donc ñun ñàkk ci bokk même bu ñu dem demuloon sax pour jouer suñu set ne serait-ce que di ci push di ci wax di ci def di soutenir ñii dem. on le ferait et volontiers parce que pour ñun su idée naayisee su mbir nekkee loo xamante ne luy poser pierre la pour yéegal suñu étage mu nekk gratte-ciel mm-hmm. ñàkk ci bokk pour ñun loolu moom mooy honte bi loolu moom mooy défaite bi mm-hmm. ñun lépp loo xamante ne nii sénégalais mu ngi koy teg te muy kanam Sénégal rawatina ci li ñu nekk féetee ci muy dem Paris jaay jaay culture hip hop foofu à Paris ñii graaf graaf ñii rap rap génération yëpp confondu en même temps sur la même scène. le 15 avril. ñu ne déet na waay nga def mun a def des chaînes télé françaises des radios françaises ñun kër gi on a la chance de le faire. Mhm. yeneen artistes yu bëri ñu ngi ko def individuellement ñun mhm. dem nañ ci yeneen pays yu bëri bëri. mais y a des frères qui n'ont jamais eu cette occasion. ñun c'est une fierté. c'est un honneur que des gens puissent bosser allant dans le sens où. Mm. toujours di toj pour muy kawe. mais noo gisee rab boobu rab Galsen bi nii actuellement. noo ko gisee est-ce que am na évolution. non mais en regardant ces jeunes sànq yaa ngi dégg ay Akhlou Brick ay Dip Doundou Guiss Ngaaka Blindé. ça nous fait ça nous fait trop plaisir. ça nous fait man personnellement je suis ébahi man concert yëpp laay dem ci underground laay jaar dem du ku organisé damay dem. dem naa Akhlou Brick bi mujj Sorano dem ñëpp laay dem ñëpp ñëpp ñëpp. Okay. Pour voir comment ça se passe, je vous dis les gars, le hip-hop ne, ne, ne de surprendre les gens. À chaque fois bu ñu ko signalé naan ay mi ngi déclin mu ngi wane ne mu ngi gën a am doole. Mhm. Tant qu'il a un des underground, ça veut dire que le hip-hop se bien. Parce que underground mooy base u hip-hop te mu ngi am à chaque fois mu ngi renouvelé wu. Les gars sont hyper talentueux, mhm. hyper bons, ils ont de super bons flow, am nañu lépp lu ñu war def dara desewu leen. Donc le hip-hop sénégalais se porte hip hop Sénégal doxul hip hop moom moo doxul. ñun ci la ñuy dund ci la ñuy am suñu teraanga donc mi ngi dox. te gis naa ne gars ñu ngi koy tooj muy gën a kaw mais regardez les jeunes ay Euclou Brick on les yàggul c' est pas c' est pas aussi yàggul tey. te ñu ngi dem ay Sorano ay Grand Théâtre ay yeneen ak yeneen. am ambition. ay ay stade c' est ça le truc c' ça le truc gars yi vraiment. big up au hip hop sénégalais big up à cette initiative aussi. Uh-huh. pour juste ci initiative bi. ñun ñu ngi ci biir à 1000 pour cent et on soutient l'idée et du yem fii mhm. te bu ñu yeggee foofu incha allah hip hop sénégalais dina wane ne aussi am na ndam mën na li muy def il y aura encore des DVD il y aura des livres il y aura des films il y aura de plein de choses qui il y de scientifiques yu ñëw au Sénégal aujourd'hui ñoo xam ne jot naa rencontré jot nañu leen rencontré defar nañu ñoom ay interview qui écrivent des livres sur la le hip hop sénégalais son historique donc lii day bokkaat ci historique bu hip hop de avant de terminer avec vos perspectives à vous euh, régime sénégalais bi tey est-ce que kontaan ngeen si. Hmm. nguuru Macky parce que bu kii en tout cas c'est un régime de cauchemar Macky c'est un cauchemar franchement quoi c'est de la dictature et en plus dictature en complice avec les médias très honnêtement quoi parce que Ablaye Wade. franchement les médias la presse combattait Abdoulaye Wade comme pas possible les médias mais actuellement Macky Sall est en train de faire du n'importe quoi dans ce pays en train d'emprisonner les gens il n'y a plus de démocratie il a un il peur d'avoir euh, une opposition ku opposé na delloo si waat xelam. Thiat yow tamit c'est le Sénégal. Uh-huh. Abdoulaye Wade bi mu ñuy jaay prek dañu taxaw jaay ko prek donc c'est pas un Macky Sall qui va nous faire peur il a intérêt à faire beaucoup attention. mais yéen ku ñëw doo leen ànd ak moom man loolu. jamais oui jamais bu ñu du ñàkk ànd. de manière non objective, hein, on, on, parle en toute objectivité, quoi. Tu mm. vois, les attentes des Sénégalais, quand même, les Sénégalais sont restés sur leur faim, quoi. Il y a, je ne dis pas que Defoul Dara, mm. Amna Lumi Def, mais vous avez Lumi Def, mm. majorité des Sénégalais. ñun li ñu ñor mooy dund gi wàññeeku. Uh-huh. nit ñi lekk nit ñi jàngi. nit ñi faju hôpital bu dem bay paan ay machine bu ñuy fajee ñu yore cancer ça veut dire que le pays bi métti na trop. jamono ji vous n'êtes pas content. non du tout. non du tout du tout xalaatuñ ko newul sax ci yoonu di ko defar ci loo xamante ni xaaru sax bay kontaan. du du du priorité. ok loolu laa bëggoon xam kër gi nee nañ xaajuñ ko les perspectives du groupe kër gi lan mooy seen projet. ñu tëjee loolu émission ñun avec nos avec nos tournées yi ci biti. Uh-huh. avec la bande donc uh-huh. en live avec le Walian bande très bientôt donc euh, plus le 15 bi yëngee ko mais dinañ ñëwaat waxtaan. xam nga ñu gën a yaatu ci projet yi xam naa ne temps bi. tey ku bëgg am kër gi si benn concert benn soirée waa Kaolack waa Saint-Louis est-ce que mën ñu jox benn contact. waa àdduna yëpp ku bëgg Gajaga wool Gajaga waaw 77 516 47 77. 516 47. 47 77 77. bon juste dire aux aux aux mélomanes d'aller acheter les albums. Uh-huh. am na album yu mujjee génn yu nice. ay heure lu bëri génn nañu. Mm-hmm. y' a pas mal d' albums surtout l' album d' Express. d' Express biir ak biti. donc je conseille aux mélomanes et aux amateurs. Mm-hmm. de l'acheter. c'est un bon album te ñu xaar maaxalaax yi maaxalaax yi mi ngi ñëw xaar leen ko mi ngi ñëw. ñu xaar Général Diaz ñu xaar pas mal de rappeurs gars yaa ngi ñëw quoi ak doole. ok di bëggee fii ak.

<laughs> mais le 8 avril le 8 avril. Euh, grand théâtre. Euh, ah, avec tous les artistes. aussi aperçu Paris. voilà quoi. pour le public local. bye bye. Kesh. yëpp. ay galaasi